ñu ngi ak euh, le jeune promoteur l'initiateur de cet événement grandiose euh, Ibou Bambara de son vrai nom Ibou ñu ngi lay. saa waay bëggee naa la. waa Ibou tey loo yëg. kontaan barke alxuraani karim ndax lii dama doon gëj dama ma may dem sangu ji dama jox. dama see kontaan ba xamu nu may def karim mais est-ce que xaaroon nga lii. non xaar naa lu ëpp lii si ndax ñoom maa ngi ñoom dañoo maa gi fer lu ma woote lu ne ñoo si ñu ñëw ñu ñëw teew muy dëj di lu nekk di bànneex di naxar kon ma lii mais dama see gën a kontaan ndax daa am lu xew moo tax daa am lu si nekk si suuf loolu moo ma moo ma gën a jooyloo. lan la lan la non dafa am lu ma mais gën mais tey kontaan naa loolu yëpp fàtte naa ko mais jarul jarul parce que xuloo. mais mais xuloo mais Ibou gis nga mbooloo mi. moom laa lay wax loolu moo tax sama doon ngañ tuuru ndax bëggoon naa ne ñu nekk si biti moo ëpp sax ñu nekk si biir ah way damaa mujjee nangu nangu maa bàyyi porte ndax lu ma nekk la xajuñ mais amul lu ma dul gërëm population Kaolack ndax man lu ma am Kaolack moomu ko gënal barke alquraan karim lu ma am te ji nañ loo xam ne dinaa ko wuti si àll andi ko Kaolack lu ma mun si ñoom dinaa ko def si barke alquraan karim incha allah rabbi mooy sa a ak a Kaolack. non man Kaolack laa am maa ngi ñaan suñu borom su fekkee mu may may te seddu ma si waa Kaolack yàlla bu ma may ndax man aw ma fenn fudul Kaolack barke alxuraani karim ndax lu ma am ñoom ñoo a doro ay milliards fii laay toog billaahi wallaahi sa a ak a Super Étoile ndax dañ lay gis yow doo dem yow képp mais fooy dem da ngay yóbbaale. rouge super étoile lu tax loolu. xam nga dooleel jën ndox fii ku ñemee dañ laa dee ndax mun ngaa luyee lu nekk mais munoo luyee nit ñi dañ maa ji moo tax man dañ maa sas moo tax man lépp lu ma mun rek seen côté dama koy def moo tax fu tamit dañ may topp barke alxuraan aw ma seen fay ñoom staff yëpp ndar gu ndaw aw ma seen fay barke alxuraan karim un mois koor gi o oh, kenn amul nelaw ñu ngi oor di liggéey liggéey bi kon foog yàlla may ñu bés mel nii ko sante suñ borom sëriñ Mawlana di ko sante samay ñaari waajur barki alxuraan karim léegi nag bi na duggati nga ci histoire lan ngay waajal lu kaw la bëgg la maa ngi si lu kaw la bëgg la maa ngi si barki alxuraan tabaski ngi ñëw ñëw de luñ bëgg la laaj la maa andil leen ko barki alxuraan karim luñ ma laaj ma andil leen ko jaral na ma ko liggéey bi rëy na de Ibou bés bii nii bés ko bëggoon a def gratuit bi laa ko bëggoon def mais def mais instant bi ñoo bañ ne du ko am ndax nit ñi dañoo bëgg a baal si billaay wallaay kon mën nañu xaar Ibou ci yeneen événement ay bés yi di ñëw. waaw maa ngi war a tëgg làmb mois de juin bi. ah oui ak après tabaski bi. incha allah rabi am ay combat yu ma war a taxaw dama koy joué incha allah. lay doon wala keneen. parce que dama am su ma paree si làmb yi sama journée làmb yi bu paree après naa xalaat keneen ku mu ñëwaat incha allez merci beaucoup jaajëf